Raman waaw tey ci bis bi nga xam ni mooy set safar waaw ëllëg di 18 safar waaw moom añu yi mu ko indil indil ko sang bu tedd bi soxna Aïda Saliou Thioune waaw cay yi xeetu xéewal yu taaru te rafet te bari te yaatu te neex cëy sëñ Béthio waaw xeetu ceebu jën yi xeetu ceebu ndawal yi waaw xeetu mbaxalu saalum yi xeetu paylaay yi cëy barke Serigne Béthio très bien waaye xoolal ma xeetu xóoñ yeeg xeetu daqaar yi très bien barki serigne bayko aw buntam yi soxna botor saliw ciun soxna adja saliw ciun ñoko indil añam yi tay barki serigne bayko tay aw def ji rafet na lool barki serigne bayko Jeff. Take. barki sëriñ Bacso ceeb bu xonk mbaxalu Saalum yaasa jën cey moom eh, rënd gaa nekk noonu barki Serigne Bacso soos gi alors ma xeetu jën yi barki Serigne Bacso cey wii xeetu mbaxalu Saalum day xam nga ni kéemaan na barki Serigne Bacso <laughs> cey waaw moom Ramas أن